C'est dans différents départements ministériels. Je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes, des directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous souhaitons une bonne continuation, certainement dans d'autres sphères, dans d'autres activités. Et euh, en profitons pour euh, dire que c'est le premier acte qui est posé dans la prise en main de l'État. le deuxième peut-être, puisque le président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions de président de la République. Aujourd'hui, c'est le chef de gouvernement. Et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement pour que, immédiatement après les, les fêtes de Corité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels. Donc ci gàttal ci wolof ñu ñëpp. yoo xam ni dañ fee teew tey ci li nga xam ne aadala ci nguur gi ndax nguur moom mooy loo xam ne dafay sax nit ñi dañuy romb di dem mais nguur gi moom day sax ba faw saa su soppi ko amee rek lu mel ni day am mooy ñi fi newoon yor ay ndombal tànk war nañoo jébbal leng gi ñi nga xam ne ñoo yegsi ci cadre boobu lañ ko defee semaine passée diggante ñaari président la république yi ñu def ko ci anam bu gën a rafet tey ñu def ko ci diggante ñaari élimaan jëwriñ yi moom monsieur Sidiki Kaba nga xam ne moom moo ne woon premier ministre ba tey ji ak ñu ñi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye daf ñoo tànn pour ñu wutu ko ci di ko gërëm nag di ko jaajëfal ci nit ñu dalalee tey moom ak ñi mu àndal yépp def ko ci anam bu gën a rafet ak ni ñu doxalee passation bi ci document yi nga xam ne defar nañ koy jébbal ñu ko may ñu ñu gis liggéey bi nu mu tëree di ko féliciter tamit moom ci taxawaayam ndax defe naa gën saa gàtt ay a ngi nii mu yor ay ndombal tànk jaar ci département ministériel yu bëree bëri te dégguñu ko fi ci lu liggéey gu rafet ak euh, nekk au service njëriñu réewam di ko ñaanal yàlla continuer di ko xàllal yoon ba fépp mu jublu rek mun faa def li mu doon def di ko di félicité am équipe yëpp li ñu wax ci moom it di ko wax ci euh, euh, le ministre secrétaire d'État muy monsieur Seydou Guèye ak ne teewee na passation bi euh, war yeggali moom it ak ki koy wutu di rafet lu vraiment niñ ko doxalee tey di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum. oui. daa kon euh, chers amis internet Bour News euh, ki nga xam ne mooy Sidiki Kaba moom ngeen gis euh, muy dem nii Ousmane Sonko moom moo ngi na leen di duggaat ci li nga xamante ni mooy biir primature